Euh, di famille Kunta xale bi def benn déclaration euh, jëmale ko si euh, réseau yi ñaawteef yi saaga yi xaste yi jëmale ko si askan bi nekk na mbir moo xam ni sëñ mu koy ñaawlu mi ngi mi ngi ñaax askan bi ñu ànd ak dal ànd ak yar ak tegin loolu la am solo la. tey nag ñu dalal Samy Seck Samy Seck moom mooy directeur bi nga xam mooy directeur Salam Vision Samy ñu waxtaanee tey ñaari sujet d'actualité guddi yonent yi fële si Kaolack ak euh, guddi ak déclaration xalif général de Ndiassane euh, xam mooy porte-parole Abdourahmane Koita mi ngi daan xaw askan bi ñu dellu seen xel si yàlla bàyyi yéen ci àll sa sa Samir asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ni macha allah ñu ngi topp chaîne bu mag bi nga xamante ni mooy Salam Vision euh, lépp loo xamante ne doon actualité ñu leen ko ci dégtal saa su ne ba tax ñoom ñu wóolu di ñu topp di ñu suivre saa su ne.

Euh, yow yaa ngi muslim mbirum diine ak mbirum soo mhm. li xaw démb fële ci kaw la lu doy waar. Mhm. wàcce fa taw bu mét taw bu métti. Mhm. xewal la. Famille Bass Baye Niass jarul la ñu présenté Sénégal yi. yow noo gisee tey xewal boobu ak noo gisee euh, guddi yonent sallallahu alayhi wa sallam. macha allah mu doon loo xamante ni am na solo loolu wax nga ko léegi. ndax ndox ku ne xam na ni xéwal la. rawatina ci jamono lii ñu nekk ci jeexitalu nawet bi. macha allah mu doon loo xam ne lu am solo la. ndax defe naa bu ñu demee ba ni bésu gan ak juddu. Mm-hmm. yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam sayyidina Muhammad rasulullahi moom la ñuy ngénte waa mm-hmm. mu doon loo xam ne lu am solo. Mm-hmm. ci bés ba suñu borom wàcce wàcce ay miracle. ndax démb ku ko gis xam ne Ndiassane Saloum ñun suñu équipe yi ñu fa nekkal yépp information yi ñuy jox ba ci vidéo yi xam ne liggéey nañ ko fa mm-hmm. yëpp boo ci xool fi ne daanaka ndox ma dafa dem ba dafa taar kon loolee defe naa ni xéewal la mm-hmm. sant la mm-hmm. waaye tamit euh, miracle la ndax kenn ku ne xam ne ni moom nawet moom daanaka jeex na bu yàgg waaye boobu ak léegi buñ demee ba ci bisu yonent bi ngénte waat bi ndox mu toll noonu daal di waat ci defe naa ni loolu tawfeex la waaye juste que ne rek encore une fois de plus ñuy ñuy ñuy defaat lancer waat un appel solennel ci autorités yi nga xamante ni ñoo nekk ñoo ŋànk réew mi. Mm-hmm. ngir ñu mën a bàyyiwaat surtout ñi nga xam ñoo yor wàllu sanitaire. Mm-hmm. parce que defe naa ni dëkk bu mel ni Kaolack. dëkk bu mel ni Ndiassane. Mm-hmm. Euh, no fa mu nekkee fa mu féete. Mm-hmm. donc war nañ fa mën a liggéey liggéey bu mucc ay boo xamante ni bu ndox ñëwee waru fa mën a taa bay yàq. Mm-hmm. mais buñ ko xoolee ndox mi dem na dem ba ëpp jéggi dayoo jéggi dayoo boo xamante ni macha allah. nit ñi dañoo demee ak seen ngëm. demee ak seen iman. demee ak seen pas-pas moo tax faaletuñu woon ndox mi la leen ñoroon mooy bisu yonent bi nga xam ne ñu ngi ko doon géntewaat di ko màggal. loolu moo leen mais du du du du yoon. Mhm. parce que tey jii nee naa gouvernement bi. war nañu mën a bàyyi xel askan bi waaye war nañu gën a bàyyiwaat xel kilifa diine yi. Mhm. ci liggéey bi nga xam ne. Mhm. ñi ngi koy liggéeyal yàlla. waaye ñu ngi koy liggéeyal population sénégalaise. parce que tey jii am na une partie boo xam ne tey jii këru diine yi. ñoo ciy taxawale di ci jàppale président de la république ak mboolem gouvernement ndax lu lu lu ñu bëgg ñoom. ñoom autorité administrative yi. bu yeggee ci këru diine yi. Mhm. a saafarawu mhm. kon war nañ leen mën a bàyyiwaat xel joxaat leen seen wàccuwaay waaye taxawuwaat leen ci seen i ville ci seen i population ci dëkku religieux yooyu nga xamante ni tey jii kenn ku ci ne ci àdduna bu xew-xew amee da ngay foofu ñëw di leen siyaar si. Mhm. war nañ leen mën a bàyyiwaat xel bu baax a baax macha allah rek. ah kooku mooy euh, Samy Seck ñu ko déggandoo Samy benn question ma lay posé gis nañ tey euh, dëkku Niassène macha allah. na l'essayeur tey ban euh, appel ngay lancé aussiteurs ñi mu fekk karange mbirum santé mbirum ndox souvent dañ koy ñàkk si gox goxaan yooyu mu doon lu doy waar parce que bi ma xoolee keroog ci bésu gàmm bu njëkk gi gis naa ci veille bi le ministre de la santé en personne def une déplacement bu extraordinaire dem foofee nga xamante ne mooy ba mm-hmm. yóbbu fa lépp loo xamante ne jëm na ci jumtukaayu santé wàcce ko fa taxawu leen ci taxaw bu am solo mm. defe naa itam noonu la ko waroon a mën a toppee def ko ci këru diine yëpp mm. surtout que ne moment bi nga xam ne ñu ngi ci toll ñu ngi wax naan fi ne ba léegi pandémie bi jeex na jeexul mais peut être que wàññeeku na euh, bu fekkonte ne à cent pour mm-hmm. ko fi tàkk te bu mm-hmm. boobu mu taxaw woon waa waa waa waa waa Thiénaba mm-hmm. di ko taxaw waa Touba di ko taxaw waa Tivaouane war na ko mën a taxaw këru diine yi yëpp la muy def fii mu def ko fële mettre leen au même pied d'égalité mm. parce que moom son rôle c'est ça mm. mooy taxawu kër diine yi ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu saafara waj croix rouge a ngi fi mm-hmm. ñeneen ak ñeneen a ngi fi kon ñooñu ñëpp tey événement religieux yu mag yi nga xam ne ce sont des événements dafa war a jël lépp lu bokk ci corps médical ñu ñu dem tas leen ci biir këru diine yooyu parce que mm-hmm. màggal la gàmmu la événement la boo xamante ne annuel lay doon. Mm-hmm. kon dañ leen war a taxaw taxaw boo xam ne booy ni ma ko waxee rek. Mm-hmm. sanitaire bi ni mu ciy def noonu la ci mm-hmm. santé bi war a def. noonu la ci sécurité bi war a def ministère de taxawu leen parce que ña fay dem ñëpp mooy population sénégalaise bi ñoo fay dem. ba pare dañuy am yeneen population yoo xam ne dañuy jógee à l'extérieur ngir ñëw assister événement yooyu. kon defe naa ne ñooñu bu ñu fi ñëwee war am sécurité. war am taxawaayu santé war nañu am taxawaayu sanitaire ci ci anam bu mu mën a ne. war fa mën a def ba mu mën sëkk. parce que ñàkkuñu am nañ ko fa def. mooy soxla bi macha allah. kooku mooy Salif Seck ñoo ko déggandoo ay déclaration macha allah jëmale ko si guddi yoon fële ca Kaolack nga xam ne suñu envoyé spéciaux yi. Mm-hmm. dinañ si ñëw enrage mu mm-hmm. décrypter l' information sanitaire. Mm-hmm. loolu rafet na macha allah. Euh, seen benn question moo lay posé euh, ñun si mbirum diine. le porte-parole du khalife général de Ndiassane. Abdourahmane Kounta. def na benn sortie bu am solo. nee na. réseaux sociaux yi nañu moytu. Mhm. ñi nga xam ne fan di nañ ñi askan bi mhm. di saaga di xaste comme ñun dañu nekk aussi un médium d' information et de sensibilisation mhm. jege askan bi loolu si déclaration xalif euh, dafa doon déclaration boo xamante ni euh, du ma ne sax xalif mais déclaration d'un être humain tey ji ma ci gis sama bopp parce que comme ñu ngi nekk ci média nekk ci chaîne d' information sama bopp rek laa ciy gis du ma collé motif kenn. du ma condamné kenn. li tax man la dem je le vois comme un être humain bu def déclaration. parce que yëfi nit la wax. yëfi nit ku baax la wax. yëfi nit ku jub la wax yëfi nit ku ñu yar. xam nga dafa am loo xamante ni Sëñ Tuubaa da ko da ko mos a wax boo fekkee ñaar ñu jàppante. boo ko ñemee ne ko yaa tooñ. ñu ko lu tax mu loo xam ne nit ñu bëri dañ koy bàyyi surtout ñi nga dañoo nekk ci média ci presse. mooy dañu def ni presque bi ñu nekk daf ñu dox tous les droits du monde yoo xam ne lu ñu bëgg a xool nañ ko xool lu ñu war a def bëgg def war nañ ko def. Hmm. et c'est pas nit booy wax hmm. na nga wax wax bu wér. nga wax wax bu yanu maanaa na nga wax wax bu teggine hmm. na nga wax wax joo xamante ni ni ko mag di ko déggee mu koy neex noonu la ko gone di ko déggee mu koy neex noonu la ko ndaw di ko déggee mu koy neex loolu mooy wax bu yanu maanaa mooy wax bu baax wax bu rafet d'autant plus que koy xool Sénégal man gars yi dañuy wax naan c'est un pays laïque mais je ne serai jamais d'accord sur ce point hmm. parce que mënu peut pas être un pays boo xamante ne quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze pour cent nous sommes des musulmans hmm. ñu bëgg jël pays bi def comme un pays jamais au plus grand jamais man personnellement je serai d'accord sur ce hmm. point duñu ko ma sa nangu parce maa ngi yëngu ci diine diine rek moo ma ñor cosaan rek moo ma ñor aada rek moo ma cosaan la mm. aada la mm-hmm. foo dem dëkk boo mën a dem budul Sénégal boo fa demee seen culture dañ ko fonk seen religion dañ ko fonk mm-hmm. léegi ñun pourquoi ñun suñu religion suñu suñu suñu culture mm-hmm. suñu cosaan ñun ñu bëgg ko nax sa saaxaati kon ñun defee mel ni ñun xamatuñu fi ñu jëm xalit bi la porte parole di xalit déclaration bi mu def dafa am solo parce que tey jii boo xoolee réseaux sociaux ngañante moo fi am waxante lu bon information mooy information bi nga xam ne da nga koy joxe mu yee nit ki. wala mu jëriñ nit ki. wala mu soñu nit ki wala mu tegaat nit ki ci yoonu siraatal mustaqiim mais information boo xamante ni këral lay jur. coow lay jur. xastante lay jur. ŋàññante lay jur. loolu du information te loolu du jëfi nit ku baax du jëfi nit ku yiw. Mm-hmm. on est et on doit rester man gis-gis laa ci moo tax du sax ñu naan jot jaar ñu naan porte parole déedéet hmm. c'est un être humain mi ngi mel ni tey jii le doyen sax bu toogoon gis benn dëkk benn yeeg hmm. te lii mu wax ni yow fan yee passé nekk am na benn hmm. contribution bu am solo je me rappelle très bien ki juddoo fi nga war a juddoo ñu yere la fa nga la war a la ba nga màgg toll ni nga toll defe naa ni boo demee am xam-xam ba nekk ci benn liggéey boo xam ne liggéey bu bu bu noble la da nga war a mën a bàyyi xel li ngay def muy di ko teg ci fulla mm-hmm. di ko teg ci fayda mm-hmm. di ko teg ci temps waaye di ko boole maanaam wax ju am solo mm-hmm. wax ju yaru wax ju teggine wax juy jëriñ ndax damay dégg suñu sang ba yal nañu sama borom taas ci barkeem ba almaxtuum ñu doon wax naan at baat lay génn benn yoon lay génn bu génnee ren balaa génn ci déwén am na mag ñoo xam ne dañ ko fexe ba jot ci dañ ko laaj ne ko lu waral fi mu toll nii tëju beeg ñàkk wax ji mu ne dama xam ne wax ji moom li muy bëri bëri bëri bëri bëri du génn ñaar yi wax loo bëgg a def wala wax loo def ba noppi gannaaw wax ji moom li muy bëri bëri bëri ñaar yi lay ëmb kon nañ bàyyiwaat xel ci wax ji nañ bàyyiwaat xel ci li nga xamante ni information la yu ñuy diffuser man je me dis am ne bu ko nit ki génnee du information mm-hmm. mais yàq la day jëriñ nit day yee nit day soññ nit day tax nit amaat beneen taxawaay bu mu war a taxawaat macha allah ci nga xam ne moom lay liggéey kon réseaux sociaux yi ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk ñooy mm-hmm. les acteurs mm-hmm. ŋànk ko nañ bàyyiwaat xel bu baax a baax que du du lu ñu neex rek ñu wax. Mhm. même war nañu mën a dem gis jëf joo xamante ne rafetul. Mhm. ñun ñu fexe ba rafetal ko. Mhm. jox ko information bi nit ñi pour ñu mën a soññante waat ndax nit bu defee lu baax da nga koy wax. la tax nga di ko wax. mooy pour moom mu yokk lu baax la mu doon def. waaye dana tax itam ku daawul def lu baax jéem a def lu baax. te loolu mooy solo bi loolu la ñu mag ñi yare te loolu mooy réalité bi nga xam ne mooy am fii en Afrique plus particulièrement ici au Sénégal ne porte-parole bi def na ko. ñu ngi ko ciy sant. di ko gërëm di ko ñaanal tamit ndax déclaration bu am solo la def soññaat nañu man de soññaat na ma moo tax man la sama bopp laa ciy gis hmm. condamné wu ma kenn dugguma ci kenn mais sama bopp bi ma ciy gis hmm. man soññaat na ma yaraat na ma tegaat na ma tam ci yoonu siraatal mustaqiim ndax loolu mooy li nga xam ne mooy li am solo macha allah rek hmm. kooku mooy Samy Seck ñu ko déggandoo junni na ko lépp loo xam jëm na si déclaration porte parole xalifa général des Niassane mi ngi a daan xawaat nit ñi bu a góorgóorlu bàyyi bàyyi ŋañati bàyyi bàyyi xas-xas yi. Mhm. loolu du média mais sax ñoom gis nga tey euh, programme rajo télévision yi bari nañu. Mhm. am na programme yoo xam ni amul benn sens. Mhm. xaste saagaate détourné culturellement euh, euh, li ñu naan ndaw yi. lan mooy sa message si loolu c'est important. bon foofu moom doyen. Hmm, damay jël toor. waaw teg ko ci ñi nga xam ne ñooy autorités yi. yi nga xam ne ñoo ŋànk tey li tout ce qui la communication et l'audiovisuel. parce que mu tax. Mm-hmm. bu ñu demee ba ni Sénéra am na. Mm-hmm. Soda am na. correct leneen ak leneen am na. ARTP. Mm-hmm. kon ñooñu tey seen rôle mooy vérifier toutes les informations transmises à travers la visuelle ah, à travers euh, les bandes FM à travers la presse écrite ainsi de suite ainsi suite ñoom loolu mooy seen rôle mooy surveiller leen saytu leen àndandoo ak ñoom ci loolee nga xam ne ñu ngi koy def pour joxe les bonnes informations en temps réel mm-hmm, mm-hmm. donc première part bu may soupçonne bu may bu ma bu may critiquer mm-hmm. man ñoom laay critiquer les les autorités administratives yi nga xam ne ñoom ngànk communication en commençant par ministère de la communication ainsi suite ainsi suite ainsi de suite ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom ñooy les policiers ñoom ñooy suñuy policiers ñun ñoom ñoo ñu war a suivre ñoo ñu war a topp ñoo ñu war a ñuy liggéey ak information yi xam ne information bi lu réel la lu baax la lu jar a génne la lu jar a génne la mais koy xool ba xool ko ñoom seen liggéey dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. dafa des. dafa des lu bëri. bu ñu waree liggéey cent ñi ngi liggéey quarante wala quarante cinq. liggéeyuñu sax cinquante pour cent. parce que taluñu ko. donc nañ bàyyiwaat xel parce que bu fekkee dañu permettre kay kenn ku ne nga mën a dem ubbi sa site internet wala nga ubbi sa chaîne YouTube wala nga ubbi sa presse en ligne wala lu mu ci mën a doon mm-hmm. kon biñ la ko accéléré la ba pare war nañ la amul amul sens kooku waruñu ko bàyyi sax muy muy génn waxuma la muy dugg ci internet bi kon réseaux sociaux yi ñi ci nekk nañ bàyyiwaat xel xam lan mooy njëriñu réseaux sociaux <laughs> c'est pour donner de l'information en temps réel loolu mooy soxla li ci des yëpp ay détails kon mm-hmm. kon message bi encore mooy nañ ñu bàyyiwaat xel ñoom mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom ñoo leen autorisé ba nga xam ne ñi ngi tey ci média bi mhm. di ci liggéey di ci génne ay information bu xam ne ñoom ñoo ci nekk muy nous mhm. mhm. nañ jàngalaat suñu bopp nañ gëstu jiwaat di joxe information bu am solo bu buy yar buy yeete buy jëriñ doomu aadama loolu mooy solo bi keneen ku ku ko def waaye ku ko noppee def itam wàcc nga yoon bi te la sëñ Fallou waxoon rek ki ne ci yoon bi daal moo neex a yóbbaale waaye ki wàcc ci mbooy mi moom defe naan du fa neex a yóbbaale macha allah jaajëf sëñ Fallou Mbacké yal na ko yàlla yërëm saxal ko àjjana kooku mooy Samy Seck ñoo ko déglu Samy mhm. euh, bi ñu ne mbirum làmb xam nga làmb c'est culturel mhm. suñu aada la suñu cosaan la mhm. ñun dañ judd fekk ko fi tey CNG ñu xam ne Alioune Sarr ko jiite woon am nañu benn président bu bees ñu tudd Bira Sène ñu koy woy Ibrahima Sène di doomu kaw bu doon di jiite CNG bu Kaolack bu lutte tey seen daal euh, làmb ji nekk Pikine tey ah Pikine waaye seen bopp culturellement tey noo mën a gisee tey Euh, le CNG ak lamb yi nga xam ne ñuy a nekk si ay jafe-jafe. Mhm. waaw foofu moom xam naa ni wax ji du mën a bëri. parce que xam nga man moom yàlla dafa dogal. Mhm. damaa tënk sama bopp ci ay mbir. ndax xëy na euh, posture bi ma féete. Mhm. moo tax xëy na mayu ma leen même bu ma ko mayee. yëg-yëg bi may dund man. bokkul bokkul ci loolu. waaye jusque ni rek gannaaw maa ngi ci média bi. maa ngi suivre maa ngi dégg les rumeurs maa ngi gis les actualités. jusque ni rek nañu fexe ba li nga xamante ni mooy. liñ doon coow boobu ba tey. parce que durant que ni am. benn président rek moo fi ma a am muy Aliou Sarr yàlla dogal na itam dem na ba nit ñi mel ni dañoo doyal ci moom ba jëlee ko fi. Mhm. mel na ni sampaat nañ beneen bu bees ba taxawalaat beneen bureau bu bees. Mhm. ko jox. Mhm. nañ am ngor. nañ am fulla nañ am jom xam ne liñ leen jox moomuñu ko. dañ leen koo dénk ngir ñu war ko saytu. te ni fi président Aliou Sarr jógee. ñoom itam boo lëggee nii leen fi jógee ñeen ñëwaat ñeneen ñëwaat toog fi. kon mbir boo ci nekkee te moom loo ko dañ la ko dénk ngir nga war ko saytu. fexe ba def ci fulla def ca fayda. def ca jom. ba ku la ca fekk boo liggéey doo am lu mu lay ñaanee waaye ñu dénk la mbir nga def ni say bopp la daanaka lu la neex rek nga ciy def mm-hmm. amul sens mm-hmm. beneen bi ci topp mooy damay dégg chaque jour mm-hmm. dagg yi nga xam ne ñu ngi koy dagg lutteurs ba léegi ñun xamuñu lan dagg boobu fan lay dem fan lay dugg ah, ak kan donc foofu tam foofu laay gën a situé wu ak santé wu fa nañ xamal mbër yi ak membre yi nga xamante ni ñoom ñooy dund ci làmb ba dagg yi nga xam ne ñu ngi koy dagg lutteurs yi parce que ay sanction la. Mhm. on en est tous conscients loo gis am na sanction. Mhm. mais sanction bi bu amee ba ñu dagg mbër bi benn benn benn benn benn benn benn benn benn dagg. Mhm. lañ ko dagg war nañ mën a ni dagg nañ mbër bi nangam waaye fii lañ koy dugal. fañ koy dugal mu leer. ci bopp nit ñi leer ci bopp mbër mañ ko dagg. leer ci bopp yeneen mbër yi nga xam ne boo léegi kuñ ci dagg doo am loo ko ngañ. mais bi CNG taxawee ba léegi mosuñu am information bu. crédible ci li ñuy dagg mbër yi ni fii la jëm. donc foofu daal laay soññewaat wax dëgg yàlla di leen wax ne rek. du seen yëf. Mhm. yëfu askan bi yëpp la. kon nañ fexe ba teg ko ci yoon wi ñu ko war a teg. ba euh, di gërëm Samy Seck xam mooy directeur de l' information du site mhm. euh, Salam Vision. Mhm. ñoo ko déggandoo junj nañu euh, guddi yoon ci salaam alayhi wa salaam fële ca Kaolack. ñëwaat nañu sur le porte parole du khalife général des Niassane jëmale ko si réseaux sociaux yi wax nañu mbirum làmb lépp loo xam ni soxla na askan bi Samy ñu lay gërëm la sant. macha allah voilà. jërëjëf doyen ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci ci ci interview bi nii macha allah. Hmm. Euh, di am kontante ndax li koy waral mooy suñu kilifa nga suñu hmm. waajur nga hmm. li ngay def yàlla dogal fi wax dëgg yàlla nga jàngal ci ñu bëri tey ci biir réew mi nga xam ne tey jii bëri na fi ñoo xamante ni fa ñu nekk la leen di jëriñ la ñuy jëriñoo ci sa jëmm ju ñàkk solo ju baax ji macha allah fii la jóge kon ñoo lay sant di la gërëm di la ñaanal sama borom doole laa taxaw doolu lay guddal gën a wéral say cër ba mboolem yéene yi nga xamante yàgg nga ko naa la réew mi sama borom defal la ci lu kawe sa nga yeggale ko ak sarsako waaye itam di soññaat bu baax a baax askan wi mm-hmm. Mm-hmm. nañ bàyyi xel suñu bopp bàyyi xel ci ban réew lañ ne mm-hmm. bàyyi xel ñan ñooñu nee ne ay kilifa lañu am ay kilifa yoo xamante ni yu extraordinaire yoo xam ne àdduna wërngal këpp dañ leen a naw dañ leen a jox cër dañ leen a jox seen li ma ciy jàggoo jàg tàggoo sama kàddu guddi daal mooy li sama ba daan wax alaaji Cheikh Mbacke kenn du kenn du fa jaar ci moom ba yàpp ñu kon itam ñun itam nañ leen fexe ba fi ñu bokk mhm. bu ñu kenn bu kenn yàpp suñu sàng si mhm. wala suñu réew mi wala suñu waajur yi mhm. ndax suñu jëm yi kenn fexe ba ñu yàpp suñu kilifa yi wala ñu suñu réew mi wala ñu yàpp suñu waajur yi ci fi ñu bokk mu doon loo xam solo loo xam ne kenn ku ne war na ko mën a bàyyi xel ndax mag ñi dañuy faral di wax ne am na lool am ko tañ xamoo ko nga ñàkk ko te xam ko daf koy gën kon nag nañu xam li ñu am lu mu doon bala koy ñàkk bu ñu ko ñàkkee dina nekk ci ñun. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jaajëf doon focus la rédaction tuddee ko si kàllaama Kocc. gëstu bés bi. Mm-hmm. ñoo ko déggandoo di gërëm euh, Samy merci beaucoup. Mm-hmm. caméra mm-hmm. euh, ma Diouf n'est-ce pas. waa assistant Ousmane Mbaye mais mais mbokk yi ma ni gërëm leen sant incha allah ba beneen jamono ñu teew ko seet si ak kattanu yàlla sallallahu alayhi wa sallam.